bokki jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla noonu yàlla boole jéggal suñu diggante ak moom te dox ci suñuy diggante ak suñuy moroomi jaam ba li muy wax ne balaa kenn dugg aljanna bu ëllëgee da koy tàggaleeg moom yàlla na ko yàlla tàggaleeg noonu fii te boole ña ñuy dem aljanna te suñu dugg aljanna bañ a am benn charte tomb bi ñu fas yéene fàttalante tey dañoo bëgg ñu déglu ko bu baax te kenn ku nekk bu demee mu def kem kàttanam mu ne su ko tudd xew-xew jamono ndax tomb la boo xam ne ba fi nit ñëwee ba léegi ñoo ànd waaye léeg-léeg nit day dem ba gëlëm ci yoonum jaaroon te fekk du yoonu suñu borom yàlla nañu ci yàlla musal lépp loo xam ne nit a ko sàkk ci coobare suñu borom ba sottal ko saa bu ca noppee bu ca loxe bu ca loxo jógee rek léegi tey ak ràpp tàmbali caa am akuk jagari ba ba muy alku waaye lépp loo xam ne nag suñu borom moo ko sàkk donte moo sàkk lépp waaye loxol kenn demagu ca day gën di ñoŋ ba ba muy soob suñu borom tom bi ñuy waxtaane nag moo ci rawati yàlla lu ci nekk bala mu ko sàkk ci suñu dégg ci ñun niñ xamee yi ñuy sottal def ci ab étude daal di koy tàmbalee def di ko taxaw ba mu àgg ñu di ko entretenir loolu lañ xam waaye yàlla it lépp lu mu waajal tegal ko fi nit su nit ki yamee ci fa ko ci yàlla yam loo loolee dugg ci loxoom luy ñoŋ la ba ba faw ba ba mu fiy jóge bàyyil ko fi ñeneen waaye su fekkee nag li yàlla sàkkoon sàkkal nu ko fi ñu war koo jël yóbbu ko fa ñu ko yàlla yóbbuloo suñuy yëf dugg na ci ba di ci sikkal loo xam ne yàlla moo ko ca jagaloon ba noppi day mujj des ci suñuy loxo te duñ xam nuñ koy saafaraati tomb boobu mooy bu yàggul rek dafa am ndaje mu xumb mu amoon ci réew mi ñu di ca waxtaane yee àqu jigéen ak doomam muy jigéen ak gone am ca koo xam ne seytaane da koo jey ñu ne boroom xam-xam la lool ndax professeur la muy wax ci àq yi jigéen war a am ba dal ci kaw lislaam dal bu metti ba ne alxuraan dañ ko war a seetaat ndax ndax jox góor ñaari cër jox benn jigéen ne jigéen nay toog ca kër ga góor di dem loolu dañoo war a seetaat alxuraan mu mel ne nag moom daa war a seetaat boppam te moo ne kooku koy wax turu jullit la yor nee nañ it ku mën a jaamu yàlla la waaye yàlla man lay jaamu xaar yàlla mi mi nga xam ne mooy borom alxuraan moo tax yi yàlla di waajal tegal ko fi jullit ñi te lislaam léppam waajtaayu suñu borom la wu yàgg ndax bokk yi ci misaal képp koo xam ne ab toggukat la su demee dajale ya muy togg yi togg yépp daje mu taal ko toog fa ba mu sotti ñu bàyyi ko ci sagoom ba mu sottal ku bëgg lu mu jariñoo ciw ñam bu jàkkaarloog loola dana ko war a bëgg ndax wàccaay wacca war yépp waajal nañ ko ko moo tax bokk na ci yi lislaam waajal te ñun ñépp ñu fekk ko fi mooy lislaam bàyyiwul genn wet goo xam ne ab jullit dana fa jublu te nosalu ko ko nos boo xam ne bii day jàpp rek wam mat dem ba fa mu soxlaa wala fa fa ak dundam yam mu yam fa waaye suñu borom bu ko sàkkatalee bu ko wutalee li muy li muy wammatit dana ko ko sàkkatal ba nga xam ne am ruur du ko mën a dugg su ko nangu su nangoo loolu su nangoo su ko nangoo bàyyi yàlla waaye dana ko fa indil xont bu doy sëkk boo xam ne du xiif du loof du mar loola mooy lan bokk na ca yooyu jigéen jigéen ci boppam kooku dafa bëggoon ñu jox cër jigéen ba yàgg mu far ne alxuraan moom warees na koo seetaat ndax da cee xaw a juum yàlla na ma yàlla jéggal kàddu gi yàlla na ma ko yàlla jéggal te jéggal ko ñi koy dégg ñépp ndax lan daf ne jigéen moo góor ñoo yam kepp ndax li yàlla bindagun lu yam kepp amagun na ci seetlooguñ ko ci loolu weddi wax suñu borom la ndax fu mu wax danaan azawjayn addakar wal unsa ëpp na benn ci alquran ëpp na ci benn fa jaala minhu zawjayn addakar wal unsa am na feneen fu mu ca tege min nutfatin ida tumna wa anna alayhi nachata al oxra ëpp na benn daal zawjayn nag boo ko déggee rek mooy yaari ngàdd yaari ngàdd moom luñ niroo niroo lay tax ñu mën a dëppaloo mooy dañoo wuute ay dëng-dëng dëng-dëng yeneen ñu wuutale moom la kenn kay ñëw yem ca kepp muy doomu groupe ñu ne nag léegi yaari ngàdd rek moo mën a moo war a am waaye yaari ngàdd ñoo war a am yem kepp te lu yem kepp moom yaari ngàdd yu bokk romam mënoo fexe ba dajal lañu daj yàlla leen gën a xam ala ya'lam man xalaq moo ne day su jàngoo alxuraan dana xam ne li lislaam jox jigéen te bokk yi li lislaam jox jigéen li tax ma ne kenn ku ci nekk am na lu mu ci war a liggéey li lislaam jox jigéen kenn ku nekk bu demee aw jigéenam moo xam muy ay doomam wala ay soxnaam wala ay rakkam ak magam yoo xam ne am na sam ci loxoom lañ nekk war na see mën a jàppale yàlla sàmmal ko ci loolu mu ko jox jigéen ba da yàq ko ci ay loxoom fi lislaam fekk jigéen mooy jigéen ku masaan am doom ji jigéen te moo ne fàgg fàgg ween wi wenn la fàgg ween wi wenn wee waaye nag ndax góor lay doon ak jigéen yàlla lay soob ñi koy xool gis ko ci ay machine sax dañuy fekk mu nekk ba noppi waaye mënuñu ne tey dañ lay may doom ji góor wala ñu mayal doom ji jigéen waaye ku masaan sabab lu bu jëkk laata lislaam di ñëw bu ñu dégloo laata lislaam di ñëw xool bi lislaam ñëwee danañ xam ne li lislaam jox jigéen keneen mënu ko ko jox ndax keneen yoru ko mënu koo am bu jëkk bala ñu naan jigéen day fekk mu judd ba noppi waaye bu jëkk ku ma saan jur jur jigéen jur muy jigéen alxuraan nee na bu ñu nee diw yawee ko na bii soo fa xëyee da nga xam lim am ci kanam ci kanam xar kanamu baay bi borom kër gi ndax da nga gis xar kanam bi ñagas lool mu mel ne dafa am kum deele kum bëggoon fekk te yoo doomam soxnaam da koo jural rek doom ju jigéen mooy fi alquran di wax ne ida bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadib waaye du ta yam yatawaara min alqawmi min suui ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi fi turab ala saa ma yaxkumoon axakay nee na du yem ci xar kanam bu ñagas rek te boo déggee ni suñu borom jëfandikoo foofu ci suñu dégg ida bushira ahaduhum mooy moom mii am doom tey bari nañu ko daan wut ni moom te musuñu ko am yaxluqu ma yasha yahabu liman yashaau dhukura inasan wa yahabu liman yashaau dhukura aw yuzawijuhum dhukran wa inasan wa yaj'alu man yashaau aqima am nañu ko sabab lu ba tey mënuñu ko am moom mu sabab lu ko yàlla may ko ko dëgg dëgg da caa war a dëgg sant ca yàlla waaye bu doon góor waaye bu nee na bu dee jigéen da ngay gis xar kanam bi soppi ko lool bisub keroog moom du dem ca pénc ma day nëbbu ci génn dëkk bi dem ci àll bi daal di yan njëam bu demee dem xam ne loolu du solution du pexe su ñëwee attan na ko ñëw gas ko suul ndax lu tax mu jur jigéen mën na caa gaafal way jura mu ji way jur way jur xale ba ba far tàggoog moom ndax ay jigéen rek nga may jural lay wax te moo ne yàlla nee na mooy bind góor di bind jigéen di may ñi doom yu góor di may ñi doom jigéen di sax far def nit mu nekk ku jaasir du am doom far lépp ci loxoom la nekk kon l'islam fekk na fi ñuy gas ay doom yu jigéen di leen suul moom la ñuy tuddee fi ñu toll nii infanticide di ci yóbbu nit ñi cour d'assises waaye saa bu ñu ne lislaam moom ñu sikkal ko waaye ñoom dañuy bañ dara nanguwaat ko ci ci pegg bi wala ñu nangu dara bañaat ko ci diggante bi moo ne jigéen dañ ko daan doon dañ ko daan doon karahan aw tawaan nit bàyyi koo fi rakkam wala magam jël soxnaam par force moom la yàlla di wax naan yaa ayuha allazina amanu laa yaxilu lakum an tarisu nisaa karahan li tàmbalee ci tey jii moom aaya bi wàcce ba àdduna tukki bu kenn jëlati jigéen donte doon lañ koy tudde ba léegi waaye nañ ko waxtaanee ak moom ba mu nangu muy benn te dañ ko daan doon kon foofu lislaam am lu mu fi tegal jigéen ji du saa bu la neexee jël ko te du ko neexal te ko sañ bañ waaye nit daana doon soxna si baayam baayam bàyyi ko fi muy doon alalam doon naa le ay soxnaam mooy fi alquran di waxee ne wala tankixu ma nakaxa abaukum min annisaai illa ma qad salaf innahu kaana faaxisatan wa maqtan wa saa sabila wala inna allaha kaana xafurun rahima wa an tajma bayna al uxtayni illa ma qad salaf daana am wala tankihu ma nakaxa abaukum min annisa illa ma qad salafa innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa saa sabila ya cay topp topp ca lislaam limal góor su waree am soxna kan ak kan ak kan lay doon te moo ne mboolem ñi alquran wax ne xurrimat aleykum ummahatukum ba mu àgg daana am ummahatukum mooy say tànta ki bokk ak sa ndey ndey ak baay wala koo xam ne sa baay ko yor moo ko yoroon yàlla nañu ci yàlla musal yàlla musal luñ ci sax ndax ay jullit lañ léegi yu gëm yàlla waaye loolu daana fi am donn baayam doon naa leen ay soxnaam alxuraan dina dakk foofu itam cër bi ñu ko sëdd la waaye li la ci alxuraan sant mooy nga di ko tibbal añ ak reer léegi ndax taxawaay booy jur la taxaw moo ne dañ ko doon jaay ci ak njëg gu yomb di ko luyee luyee yor ay doom yu jigéen wala ay rakk yu jigéen di leen luyee ni ñuy luyee oto moom la alquran di wax naan wala tukrihu fatayatikum ala albigaai in aradna taxassuna li tabtaxu arad alxayaati dunia wa man yukrihunna fa inna allaha min baadi ikrahihinna gafurun rahim ku ko daan def waaye li ko tàmbalee tey na dakk moom kuñ daan luyee ni ñuy luyee aw fas nag war a dem fa la neex kenn du laaj bi ñu ko luyee lu ñu koy doyee su dee am xëtt moo xam ne nii du sonn ci liggéey nga di ko liggéey loo guddeeg bëccëg su dee koo xam ne ku gaa yi soxla la mu di ko jëfandikoo ni ñu koy jëfandikoo ci kaw lu yaas ya ca ya ca mën a am nag yoonu kooku nekku ca boroom ni muy luyee oto bi nga defal ko ci essence ba mu fees delloo ko ko moo feesaral ko lay fees ci moom ba mu fees nga delloo ko ko ñooy am ci moom kepp moom itam su juddee bu dee góor la mu yar ko su dee jigéen mu suul ko ni ñuy suulee jigéen ñi ci des rek loolu la fi lislaam fekkoon waaye dañ ko daan mayee itam mayee ni ñuy mayee 1000 francs wala 2000 francs waaye kañ ko may itam moo ko moom ni moo ne ni moom 1000 francs yi wala 2000 francs yi jigéen itam daawut moom dara su dee sa soxna lu mu am yaa ko moom dangay jaar sàkk jabar sax amoon boobu soxna amagutoon jaar sàkk ngay def su dee sa doom waxaale wuñ ko su dee sa jarbaat waxaale wuñ ko lam moom daal yaa ko moom yow ni nga ko ni nga ko ni nga ko moomee daal nga moomee lépp mi ngi mel ne gannaaw rek nenam rek kon jigéen daawut moom dara waaye jigéen daawut doon itam dañ ko daan donnaale dawee su ko limaale si ñi doon kon yiñ ci mën a lim yu bari la waaye bi lislaam ñëwee xam la ne yàlla mooy maye góor ak jigéen am na jullit yoo xam ne ay doom yu jigéen kese lañ am di ko sant yàlla nag ci kaw ñi nga xam ne amuñu ci kenn fa waaye ñi nga xam ne it dañ daan donn seen waa kër yi baay anu lu xew léegi mooy tabaxal leen néeg yu baax dugal leen ci di leen dundal loolu li sam santaan ñi ngi koy def waaye jigéen nit lu mu am moo ko moom lu mu am moo ko moom te moo ne am na ñoo xam ne fii ñu jëkkee xañe jigéen li muy moom te moom mooy dal wax jigéen la ca la bokkoon professeur boobee ndax professeur bi ñu ko tuddee wax aw turam ak ko santam dañuy waxaale sant boroom këram moo ne lislaam day bàyyee jigéen sant wam moomoon ba muy ñëw ci kër gi muy sant baayam mu wéyee moom waaye ñoom dañ la ci dolli sant boroom kër ndax moo la moom léegi kon dafa mel ne dañ naan duñ lekk mbët waaye saa bu ñu ko toggee ñu nante ñeex sax di wax di weddi kuy wax di weddi nag bokk yi lu wax ja bari bari yow mi ngi koy waxal àndal ak sam xel ba xam moom mi koy wax xe ñee nga koom déet benn ñaareel ba xeemeem nga ci lim nekkam déet xeemeem nga ko ci yëpp gis nii rek doon na ko fi junj keroog li ëpp ci ñiy wax ñooñu di kaasal naan àq jigéen ak àqi gone yi bu dee jigéen la koo ci xool dunduroog jigéen sax far day maw maw moom la ñuy wax régime ba wow koŋ ndax ñoom ñañ gëm bokk na ci taarub jigéen nañ jigéen daa war a sew ruuj ni bantu bale nga xam ne ñun am na ci sawaay boo xam ne ku ko sew ñun boo jégee suñu ndox duñ ko naan te ñoo yaay waaye ñoom bokk na ci ñi natte nee nañ jigéen balaa baax day sew ruuj mel ni ak karam duñ duñ musóoru boppam neen la ñuy def mel ni góor te boppam boppam neen sax góor moomu waxuma la jigéen dañuy sol ay xar géppeñ sol ay simis seen yaram mi ne watt ci ñoom ñooñu wax dëgg yàlla gisuñu xeemeem xeemeemuñ ci gis sax waxuma la déglu seen i wax ba di ko jariñoo kon ñi yor ak njaboot ak nu jigéen mën a demee ci ñoom nañ bàyyi xel ne ñooñu ñi sol bukki yu sol yaramu xar lañ yarab xar di dugg ci kër yi bëgg a génn kër yi jigéen ñi ndax yàlla moo ne woon ci alxuraan soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te su dee soxna yonent bi soxna jullit yépp dañ koy bokk wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja jahiliyati al-ula bu leen génn seen néeg toog leen fa góor ñi yor leen di leen jox ngeen di dund di leen solal ay yére di leen woddu mooy solal ay yére di leen jox ay dépense te it saa boo xamante ne soxla ngeen seen bopp ñu gisee yéen mu yomb lool fuqaha yi dem nañ bay wax ne sax bu fekkee waa ji mën na ko togg sax soxna waru ko def daa war a ku koy toggal moom la alxuraan di wax ne askinahunna min haythu sakantum min wajdikum na ngeen ko mënee mooy soo barelee dëkkuwaay ba baax waaye bu mu yanuk leket di dem ca jaba waaye bu mu bu mu bu mu fu mu fabeere ni ñu koy waxalee bi bu mu def dara lu may lu may këll ak këlañ rek kepp waaye dañ ne loolu njuumte la jigéen daa war a génn ci mbedd mi